dellu si nañ ci digg géew bi. Seydou Ndiaye ma kanam. Fodé wan Ngom moo nekk seen diggante. Ngom mooy ah gis nga ko de ah man naa man naa bëre de waaye gis nga Euh, roi des arènes ci li muy def arbitre noonu la. yendu ci fanaan ci. moo noonu la ñoo ko opté. waaye soppe la déedéet sekk naa naan. wet. Fodé gi war nga Pape Seydou mi ngi ko topp rek. ku nekk takk takk ndam. waaw waaw waaw. boo xoolee amin yaa rabbal alamin dëgg la sekk ndeysaan sekk daanaan ndeysaan sekk daanaan ñoo ngi koy ñaanal di ko jox wàccu waayam dóor na de dóor na moo ah, wax nga dëgg jël na ko jël na ko pa juyoo moom ah jàpp na ko loolu mënul ne ëpp ko doole ñaari yoon non ëpp ko doole ñaari yoon li mu bëgg def mu ne mboot ma mboot na ko daan na ko doole waaw oxo doole doxul jàmm sekk ndaa naan xoolal ci kawam gar xan fa fall waaw